na liko wundu du dara lu moy rek bëgg taxaw rek feddali suñu kóllëre di le président Macky Sall ak leader yi nga xamantene ñoko accompagner accompagné ñëpp xam nañ ne Dakar c'est un enjeu majeur ci combat bi nga xamantene mom lañuy la politiquement bo ba légui comme nak euh, man j'ai été l'élu sur la liste départementale de Dakar en tant que premier responsable femme APR de la liste bon dama fogné c'est de mon devoir régalien que ma jóg taxaw bu ñu amee ay échéances yu ñu jëm bu ñu amee politiquement taxawaay bu ñu war a taxawaay ma dajale femmes yi bennoo bokk yaakaar ndax président loolu la gëm bennoo la gëm te ci loolu lay dox et la mouvance élargie ma fédéré force si yëpp jigéen ñi ñoo taxaw ñu nekk ci ginnaawam féddali occupé terrain bi ba ëllëg ñu yàlla may ñu ndam ñoom ñoo ma ko dooleele parce que tey jii su ma ko dooleelewul woon du ma ko mën xam nga dooleel ma paasewul mu ñëw 12 euh, premier sama première législature du douzième législature mu jël ma investir ma ñu ñëwaat 2017 mu investiraat ma yóbbu ma nag foo xamante ne teg ma fa wala yàlla foo xamante ni yàlla wàccu ma fa ba tout dernièrement tey ji UEMOA ga ma newoon rampe fa nag ndax nekk naa fa membre simple ñëw nekk premier secrétaire parlementaire léegi nag ma nekk vice présidente au titre du Sénégal te loolu yëpp ak moom la defe naa ne nit bu la dimbalee defe naa ne jox la ay jumtukaay war nga koo mën a delloo delloo boobu nag du tey sax la door yàgg naa koo def mais tey dama ko waabale ci département bi yëpp ci femme bennoo yi ndax dama ko daan yemale si femme APR yi mais bi yoon dama ko waabale ba ci femme bennoo yëpp ñoo taxaw comme ni ma la ko waxee rek ñun ñëpp lëkkaloo joxante loxo nekk ci ginnaawam jàppale ko ba li mu bëgg ci réew mi mën ko def li message bi ma leen di envoyé rek mooy ñu fàtte seen bopp te jiital askan wi ak kilifa réew mi ndax bu ñu fàttawul seen bopp rek du ñu mën a dem unité ak cohésion la ñu woote taxaw remobiliser wu occuper terrain bi taxaw fu ñu war a taxaw taxaw foo wax ndax président quoi qu'on dise liggéey na mais tey ji liggéeyam ñu bëri dañ koy dinga ndax amul ñu ko taxawal ci suuf di ko di ko di di ko wax wala di ko wane ne carrément lii moom moo am surtout nag fii ci dakaar bi nga xamante ne peut-être incertitude yi nga xamante ne moom la def euh, ci région yi Dakar laaju ko mais soxla na beneen façon politique beneen façon politique boobu nag Dakar soxla di proximité di social di solidarité ñun femme Benno yi loolu lañ koy du département de Dakar loolu lañ koy apporter loolu lañ ko bëgg apporter fédérer force toutes les forces vives dans l'unité et la cohésion fàtte suñu bop, fàtte suñuy ambition jël moom ay ambition ak bëgg ba moom vision bima mu am ci réew mi fas yéene ko traduire buggee ko ndax mu am ndam.